MK TV nu nuyuwaat leen bu baax a baax ñu daal di dikkaat ci xibaar bi nga xam ni moo fi ruus ni ki léegi te itam ni ki démb ñu leen ci doon addu mu jëm ci aadama fay di rakk ci ki fi nekkoon première dame di Marème fay sàll soxna sa Macky Sall moom aadama fay nag ni ki démb lañ ko woowoon le euh, ca brigade de recherche euh, bu Colobane ngir daal di koy laaj ci ab terrain boo xam ne rek doon nañ ci tudd turam te itam am kenn koo xam ni moo ko fa yóbbu woon ci noonu nag ñu daal di ko woon placé garde à vue ki démb ci ngoon ñu ngi xamle ni moom aadama Faye mujj naa libre daal di delluwaat ci këram ci gannaaw ba nga xamee ni rek amal nañu ab waxtaan séq ko ci diggante ki nga xam ni moo doxoon ci digganteem ak euh, kooku nga xam ni rek euh, moom moom moom boobule terrain euh, ci noonu nag ñuy xamle ni rek moom aadama fay bile rakkam di Ibou fay daal di nay yëkkati ab koppar gu toll ci téeméer ak juróom ci ay millions ci sunu koppar ngir daal di koy fay ngir garantie aadama fay ngir mu daal di génn gannaaw ba nga xam ni rek amal nañ ko garde à vue foofu la ca brigade de recherche bu Colobane waaye itam bu nu delloo ginnaaw tuuti moom Adama Faye ci mbirum escroquerie lañ ko doon tudd ci mbirum terrain bu nekk euh, file euh, ci ndakaaru ci wetu euh, VDN bi doon loo xam ne rek moo taxoon ñu daal di koy téye ñuy xam leen nag moom aadama fay mujj na delluwaat ca këram gannaaw ba nga xamee ni waxtaan nañu ba fay googu le yéen bokk internetu M4 ñu leen di wax ngeen wey di abonné ci page bi waaye itam di partage ngir lépp loo xam ne rek moo di information ngeen jot ko ci anam bi mu waree